alors euh, la dernière information bi nga xam ne moom moo créé un retentissement un bouleversement euh, moom mooy la décision euh, rendue par le conseil constitutionnel bi nga xam ne nag dañu ko saisir euh, ci ñaari mbir euh, le décret euh, nu mu tudd l'article la modification de l'article 31 de la constitution ak le l'abroga décret bi nga xam ne moom moo convoqué le corps électoral président de la république euh, abrogé ko conseil constitutionnel pour la première fois depuis sa création euh, mu joxe xalaatam jël position Euh, sur une loi constitutionnelle alors que dafa tàmmaloon nit ñi di naan euh, moom dafa incompétent lan moo waral bouleversement boobu changement majeur boobu dans la marche du conseil constitutionnel. Euh, dama bëgg rek euh, d'emblée comme introduction pour man laa waxtaan ak yow si li nga wax euh, fàttali réew mi fàttali la yow tam bu fekkee ne jotoon nga ko gis semaine bële passé avant conseil constitutionnel di wax am na seen naataangoo télévision ITV. Alsaan Samba Diop bu ma waxtaan ak man sama wax dafa leeroon nañ de mm-hmm. nañ nag ni jant bi mm-hmm. mooy la xewoon sa jamono yooyu muy loi bi ngay wax ak décret bi président bi jël wane naa ne ànduma ci man nit bu leer nañ wax ak conseil constitutionnel nag ña fa ne ñëpp ma wax ñoom ne leen da ngeen war lii yëpp ndaxte àddina bi yëpp tam d' accord ñu si li xew man tam d' accord ma ci wax lu tax d' accord ma ci ñaan leen ñu leen lépp ne leen nag moment la boo xam ne historique la fii ngeen war a jóge wane seen cër mu mat sëkk dama bëgg tam ñu fàttaliku loolu ne ànduma ci woon si li xewoon léegi nag conseil constitutionnel wax na nga laaj ma si li mu wax nee nga ma. loi constitutionnelle la assemblée national voté ce conseil constitutionnel dafa yàgg wax ne du xool loi constitutionnelle wante yéen ñiy xalaat loolu tey wala ñi gis loolu tey wala ñi fàttali loolu tey jamono yi conseil constitutionnel waxoon ne du ma xool loi constitutionnelle atte yooyu mu defoon dañ koo bind de kan moo si jël bind yooyu yëpp bind yooyu yëpp laa wax ranale leen benn par benn boole ci bii daal di xool bu si nekk la ko indi woon ba tax mu wax lii noonu la ñuy waxee àtte àtte bu mu mënti doon si àddina àddina wu duraa bi nu xam boog ñun ku si wax ne mosoon nga wax lii dangay jël la mu waxi woon la mu wax fa mu ko mos a waxe la taxoon mu wax ko ak la xewoon na mu xewee boole ko bii la tax mu wax ko la xewoon na mu xewee man leen boole pour mën a wax ne ah yow day sensé nga tey wala yow day sensé woo tey wala yow day weddi nga sa bopp tey wala yow day weddi woo sa bopp tey noonu la ñuy waxee lu jëm si yoon bu nu àtte bii nag xam nga moo fi xew c'est bu njëkk ba kenn andiwu ko bii conseil constitutionnel dafa wax lu leer nañ xam nga moo tax ma andil la ko gis naa say débat gis naa débat yeneen journaliste mais gisuma benn nit bu ñëw si débat yi andiwaale àtte bi boo mu mat sëkk ne mu ngi nii am jox naa la ko gisuma ko ko def de man nag du ma dugg si loo xam ne du du mat dama la andil àtte bi page dafa bari lool juróomi këyit la bari na lool xoola këyit yi yëpp rek bu si nekk bind nañ si téere ñi am xam-xamu droit laa wax piir page bu nekk mën nañ ci bind téere waxuma ñuy wax lu neex de wala ñi xam ne dañu jàng tuuti rek defe ne xam nañu ñu xam droit constitutionnel laa wax dëgg page bu nekk fii mën nañ ci bind benn téere bu mat sëkk kon boog balaa ngay dem di xàppati di ŋàppati di wax <laughs> dangay xool lépp jàng lépp xam lépp lu ne nga xam fa mu jóge la ko indi fa mu jëm soo ko man di waxe ku nekk ak métier si àddina mm-hmm. ku nekk fexeel ba sa métier nga mën ko bu baax sa yem ci baneen bi nga bàyyi ko borom conseil constitutionnel dafa wax ne assemblée nationale am na droit def loi constitutionnelle mais à condition mu nekk domaine boo xam ne constitution bi daf ko ko jox ne ko mën nga ko def à condition que mu nekk domaine boo xam ne constitution bi daf la ko may nga mën ko def constitution bi ne Sénégal tey lu ko fi andi ñaari référendum moo ko fi andi ñaar benn bi 2001 président Abdoulaye Wade ñaareel bi 2016 président Macky Sall ñu boole leen mu nekk benn ñaar yooyu yëpp sa kàddu la yow ak sama bos mooy kàddu réew mi la ñun ñoo wote ji si wote boobu ñu ne may nañu assemblée nationale mu mën a sensé article bi article bi article bi yeneen article yëpp may ñu ko kenn ñun may mun a fay ak man ak ñun ñoo ko mën a sensé référendum ak yeneen yoo xam ne nag nee nañu ñun suñu bopp sax sañu ñu ko sensé ah conseil constitutionnel daal di wax ne assemblée nationale bii li mu def bokkul si cër bi ko constitution bi may kon annulé naa la loolu la. mais bu ñu sukkandikoo ci article 3 bu constitution bi. Euh, mu ne la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou la voie du référendum mënuñu ko utiliser ñoom comme argument. yow télévision bii nga toog fii dama interviewé yaa ko moom. waaw yaa ko moom yow kenn. waaw ki nga xam ne da nga ko yebal mu nekk journaliste ni yow xam nga jox nga ko cër bu may interviewé est-ce que sañ na jël sa place dama lay laaj ne ma déet. déet la kañ sama kër day ko xam ne yebal naa la sañoo jël sama place article bi dafa wax ne man peuple Sénégal maa moom souveraineté maa koy doxal wala ma sante ko sama représentant sama député mooy sama représentant maa koy doxal référendum mhm. wala ma sante ko sama représentant mhm. ah est que sante na ko représentant am si biir constitution bi nag la ko jox la mu ko sante ak la mu ko santewul loolu rek la lii yomb na lool mais man may peuple bi maa moom souveraineté bi maa koy doxal wala ma sant ko sama ndaw la ma sant sama ndaw mu ngi si biir sart bi la ma ko santewul tam mu ngi si biir sart bi loolu amul mais mais amu ci. mais ku ku mënti wax loo mënti wax newoo ci dëgg. newoo ci yoon yi ñooy ndawal askan bi askan bi ñoom ñoo leen euh, tànn ñu nekkal leen à l'Assemblée nationale donc ñoom ils exercent. la souveraineté du peuple. déedéet. mënuñu sukkandiku ci foofu. déedéet dañuy exercer souveraineté bi leen peuple bi dénk. peuple bi ah, constitution la leen ko dénkee looy sukkandiku yow lu la fi teg constitution tax ngay def lii de libre ne libre nga liberté de la presse liberté de ceci constitution bi daal di man constitution may naa député mu def lii ay ngir yàlla bu bëgg a def leneen ma dem wootee teg la député wootee defar sama sart ci sama sart ma ne yow député bi nga xam ne maa la fi teg lii laa la yemalee nga ne man dangay def la leneen yaay kan foo ko jële kon kenn man ma defi leneen ma xëy suba ne man député la lu ma ko tere def man naa xëy na gars yi yaay ca nañ dem marché Sandaga daje <laughs> ñu ñooy député Sénégal tey ñooy wote loi yi constitution bi mayu ma ko mayu loolu tam waaw ñoom tam lañ leen mayul li bu ko jël wax boobu jeex na conseil constitutionnel réglé na leen ba pare buñ ci yendu di si fanaan li xew leneen la waaye loolu wees na conseil constitutionnel constitution bi moo ko ne moo ko ne li assemblée di wote yaa koy xool pour xam ndax méngoo naa constitution bi c'est constitution bi yaa man la ñoo ko fi indi référendum daal di ne sama député yooyu nga xam ne maa leen yebal la ñuy def yow conseil constitutionnel yaa koy xool bu méngoo ak sama sama ma man la ma bëgg nga dindi ba mu set mooy méngoowul ak sama constitution nga dindi waaye dindi nañ ko kañ léegi li si topp ma yox ji loolu wees na. sànq da keneen ku mu doon si àddina loo wax ne woo si yoon ne woo si dëgg xamoo ko maa wax loolu. sànq da nga ne kon wax boobu nañ ko fer nañ ko fermer. continuer avancer sànq da nga ne conseil nañu dem xoolaat lu loi constitutionnelle yi ñu tekk yëpp conseil constitutionnel déclaré wu. waxuma ne. incompétent waxuma ne conseil constitutionnel nañ dem xoolaat dama ne ki wax lii man Doudou Ndoye su ma nee conseil constitutionnel nee na lii. c'est waxoon na leneen damay jàpp wax yépp rangale leen bu nekk ma xool naka la ko waxee woon lan waxee woon man Doudou looy laa ko teg teg la ko yow teg ko keneen kuy wax dans l'histoire euh, de notre jeune démocratie euh, conseil constitutionnel en 2016 président daf ko saisir laaj ko ne ko dama bëgg wàññi sama mandat pour respecter une promesse électorale mm-hmm. euh, bu ma def en 2012 conseil constitutionnel ne ko euh, dañuy bañ nga créer une jurisprudence mandat bi mënoo ko wàññi mhm. mënoo ko yokk mhm. président ko ci loolu à l'époque le débat c'était euh, ndax conseil constitutionnel décision la joxe wala avis la joxe mu mel ni conseil constitutionnel dafa nekk en droite ligne ci li nga xam ne moom mooy démarche am ne woon na ko bële passé mënoo ko yokk mënoo ko wàññi pour respecter une promesse électorale bii paa mu ne député yi amu leen prérogative bu yokk mandat président de la république mm-hmm. donc il reste cohérent ñaar yëpp noonu la amu ci kenn si ñoom ñaar ku am pouvoiru yokk walla wala wàññi mandat mandat laa wax de di ma laaj lu tax ma ne mandat bu si kanamee tuuti amu ci kenn ku am pouvoiru yokk mandat wu président de la république wala wàññiku kooku tam lu wees la lu jeex la ku ko debaa tam danga amul loo def sa àddina nga bëgg di waxtaan rek ku ko mënti débat ku mu doon àddina àddinaam dafa feesul rek ay soxla <coughs> mu bëgg lu mu waxtaanee <coughs> dëgg dëgg man sama àddina fees soxla lu ma jarul waxtaan du ma si temps <coughs> dëgg dëgg. amul amul soxla nag nga xam ne ñoom waxtaan leen neex amuñu métier amuñu temps seen temps jaruñutul dara ñoom ñoom wax wax leen jik mais maitre non euh, non attends, euh, le, attends, il est normal le hein? débat n'est plus normal il normal. il non normal. il ne l'est plus. depuis le... que le conseil constitutionnel a décidé bi conseil constitutionnel waxee ba pare débat boobu amatul léegi xam nga lu am maax yow ak ku mu doon ñu jéem a jàng lii conseil constitutionnel wax ba man ko comprendre ba mën a avancer ñu xam fu mu ñu jëmee nag ak fu ñu jëm wante dellu ginnaaw moom c'est terminé. xanaa xanaa beneen référendum ñu changer constitution bi. loolu mën na nekk man yàgg naa ko ñaan. alors lan mais débat bi du loolu tey.